ndax dañu gis ne ren dund jur gi am na de dund jur gi beeg yàlla amee nag ressource naturel boo xam ne yàlla moo na ko jaaxleel mu fees dell ak Sénégal nun waa commune Syer dañuy def participer ñu profité pour ñu parfa àll bi pour àll bi bañ lakk wala su lakkee ne am lu des loolu moo tax ñu def ñaar réunion réunion cotisation ak réunion restitution ndax ñun liggéey nañu. téeméeri kilomètres. waaw ñaari téeméeri kilomètre loolu ndax lu tax nu def ko pour ñu mën a toog pour ñu mën a toog ñu bañ a màng ñu bañ a déplacé ñu bañ a jënd ripaas ndax li koom-koom boo xam ne bu rëy la ci Sénégal ndax ñax bi ngeen di gis fii ñu bàyyi ko saggan ko seetaan ko ñu bañ ko toppatoo ba mu lakk mu ngi mel ne nga teg sa ay millions nga jël safar teg ci kawam safar bi di jaar ci ay millions yi ndax euh, ñax bi. ay multi millions la kon ndax loolu moo takk commune de Syer taxaw ànd ak population bi waaw koppar yi ci dugal askan yi dugal na ko ci asifoor yi maanaam dugal nañ ci man maire mii ngay waxal eh, jël naa ci lu tolloog de au million loo xam ne lii mën na ko loolu man maa ko jël charge dugal ci sàmmkat yi sàmmkat bu ne cinq mille francs nga ci def ak loo mën a am nag soo fekkee sareex la mbaam fas comme li mu wax léegi rek loolu nag dañuy lëkkaloo ak ASAD Eaux et Forêts bi fi nekk. ñu ñaan senegal Sénégal e naa jàppale communes yi sunu munoon bépp commune bu am naam am garadeer ci commune am loolu suñu ko defee moom état bi wàccoon nag nit yi commune bu neen am garadeer boo xam ne fooful la mooy état bi jënd ko jox nit yi. wala nit yi def dara état bi dimbal leen loolu nun ànd nañu ci bëgg nañ citerne ndox ndax tey tey tey pare fa nañ ba pare léegi su daa jógee fun nu soriwul mun nañ jël citerne bi gaaw fey ko ci sa loolu itam na moyen la il faut ñu def moyen waaw.